ci la représentante des femmes juristes, Madame Hadiba, le représentant de GCO, M. Daoudedien, nous, délégués de quartier Yifiti et nous, les imams, nous, l'association des femmes enseignantes de Meké et environ, ñëw nañu vraiment en masse nuyu la présidente des Bajenu Gox nuyu aussi la directrice di SEDAF bref ñi ngi nuyu assistance bi yépp ku ñu tudd rekk amoon nañu yéene tudd la mais xañ na temps bi moo demee noonu di leen dalal jàmm yéen ñi nga xam ne vous êtes les journaliste ñëw tey pour waxtaan ak ñun ci thème bu am solo bii thème bi nga xamante ni si vraiment problème de société la parce que yaakaar naa ne viol violence amul benn jour boo nga xam ne dinañu xëy te dégguñu ñu ciy wax à la rajo ou à la télévision wala sax ci kër gi ñu dendal kon je pense que c'est un fait de société boo xam ne ça mérite réflexion ça mérite débat kon dañuy profiter ci occasion bi au nom du maire de la ville monsieur Maguette Wade aujourd'hui empêché il est en France à Saint-Dié-des-Vosges plus précisément pour les besoins d'un jumelage donc aujourd'hui en son nom dañuy rafetlu vraiment déplacement bi rafetlu aussi le choix de Mékhé parce que nag ñëw bi yéene la àndal quand vous parlez de l'association des journalistes et que conseil à Mékhé qu'il y a monsieur Saliou Dieng moi je dirais qu'à Mékhé il y a monsieur Badara Mbaye il y a aussi Daouda Moutala parce que nous ce sont nos journalistes parce que ñoom ñooy nekk à rajo Ngaye FM chaque jour di yee nit ñi di waxtaan ak ñoom kon vraiment dañuy kontaan mention spéciale nag à monsieur Badara Mbaye bi nga xam ne lii moo ko initié ba ñun waa Ngaye ñu mën ci jot yamul foofu aussi bi mu ñëwee mënoon na ko yemale si boppam mais daf ko ubbi yaatal ka képp koo nga xam ne rek am nga ci sa mot à mu dugal la si ba tey yaakaar naa ni ku xool assistance bi xam ni lii du organisation benn nit ñuy am contentement nag parce que y a pas de hasard comme niñ ko waxee léegi di leen wax ne la mairie de Mékhé est prête à vous accompagner dans tout ce que vous quelque chose boo xam ne sensible na ci le maire en personne moo leen accueilliroon bam ñu ba ngeen waxtaanee ba dem nag daf ñu wax ne lii sama problème mu bopp la bu ñu ñëwee na ngeen leen dalal na ngeen ànd ak ñoom ba gunge leen ba ñu dellu ci dynamique boobu aussi lañ ànd ak yéen di delluwaat rek di leen wax ni nu déclarons vraiment sa sa forum ouvert je vous remercie. sensibiliser askanu Ngaye ci wàllum viol ak ci violence basée sur le genre mu nekk loo xam ni vraiment doy na waar mi ngi jéggi dayoo foo ko nattu rek ci Sénégal doy na da euh, yéeme na li ñu gën a euh, nemmeeku mooy actuellement ñi ngi ci 1776 cas de viol de janvier à nos jours presque en six mois il y a eu presque 1776 cas de viol 516 yi ay cas d'inceste lañ c'est-à-dire papa bu ko def doomam yaay bu ko def doomam sœur bu ko def doomam donc loolu war na tax ñu tiit ci loolu la ñu ñëw fii ngaay comme niñ koy defee ci yeneen régions yi ñax askan bi puisque as lëf soo koy xeex doo bàyyi ba mu ne këtt na jonn da ngay maanaam anticiper mooy la prévention qui occupe un levier fondamental mais jàpp nañ ñi ñiy def ñaaw ñaawteef yooyu également le fait que ñu leen di tëj fukki at juróomi at ça ne règle pas problème ñun dañu wax que ni képp ku ko def dañu la war a tàpp pourquoi puisque mënoo imaginer ki koy def ci xale bu am deux ans ki koy def ci xale bu am cinq ans kooku feebarul puisque tout un violeur est un dispositif de préparation ñëpp ñi koy def lu ñu préparé la c'est-à-dire ça c'est prémédité c'est un acte bien préparé donc képp ku ko def rek dañu la war a tàpp puisque ñi koy def dañ leen war a mettre hors d'état de nuire ñun daal loolu la ñu proposé pour le moment. avortement médicalisé puisque loolu. je dañu jàpp que ni lu normal la d'ailleurs ci sens boobu ñun la ñuy liggéey ak ñaar fukki association à Dakar dañu wax que ni dañu war a dépénaliser avortement médicalisé puisque ci protocole de Maputo Sénégal dafa signé ci article euh, ci pro dafa signé protocole de Maputo da ko signé ratifié ko et que ci article 14 bi bépp pays bu signé ratifié article 14 bi da tënk. donc ñun dañu bëgg état bi dañu bëgg état bi daganal avortement médicalisé mais en cas de viol suivi de grossesse en cas d'inceste ou bien s'il y a menace sur la santé de la maman foofu daal ñu ngi doon vraiment ñaax njiitu réew mi pour mu jàppale ci loolu ñu fexe voté ko à l'Assemblée nationale puisque am na benn ONG bu ñu wax Good Macher basé aux États-Unis nee nañu at mu ne ci Sénégal day am cinquante et un cinq cent cas d' avortement clandestin malgré que loi bi dafa interdire avortement au Sénégal. waaw officier de police judiciaire yi jàpp nañ ñi ils ne sont pas bien formés au niveau des commissariats puisque xam nga premier porte pour xeex violence basée sur le genre c' est au niveau des commissariats puisque bu xewee rek. foofu la enquête préliminaire bi di commencé donc officier de judiciaire yi dañ leen war a gën a former bu baax a baax ba ñu mënoon def li ñuy wax ci tubaab une bonne qualification des faits loolu li muy waral en général <coughs> mooy bu ñu demee dans les tribunaux souvent ñi koy def dañu leen di bàyyi te loolu dafay décourager loo population bi bu fekkee yow dañuy def sa doom ñaawteef nga porte plainte au niveau du commissariat mu dem tribunal ñu bàyyi ko mais beneen yoon su ko sa dëkkandoo yëgee daf koy décourager dootul porter plainte donc loolu aussi sa pose problème. monsieur lan moo la naqari ci Mariama bi da cee war a def benn solution waaw. Euh, c'est-à-dire Mariama Sarr fi ñu ko bëgg a interpeller un peu rek mooy ministère de la femme de l'enfance et la famille dafa nekk ministère bu stratégique nekk ministère bu transversal de ce fekk que Mariama Sarr dañu koy lancer appel ministère bi gën a am li ñuy wax animation comme temps wu Aïda Mbodj comme temps wu Aminata Mbengue Ndiaye donc xale yi ñuy violer xale yi ñuy sàkku moom sentiruñ ko ci nuñ ko ci war a yoon a sentir donc bëggoon mu gën a lëkkaloo association yi nga xam ni dañuy xeex ci mbir mi loolu la ñu bëggoon a wax bëggoon a attirer attention. Fatou Bintou Diop laa tudd maa ngi dëkk fii Ngaye Mekhe nekk ci kuréel bu ñuy wax GPM nekk ci benn mouvement panafricain bu ñuy wax nous sommes la solution célébrons l'agriculture familiale africaine. waaw xam nga loolu moom duma ci sori ndax Euh, déggaguma fii ko nu violé mën naa nekk nag du ma ni nekkul puisque loolu mbir la moo xam ne euh, en général ñi nu koy def duñu ko ñemee wax puisque ñi leen koy def dañ leen di jege moo tax saa boo déggee rek ñu yëkkati ko ca kaw rek xamal ni ab jàmbur ko def waaye li ëpp ci li ni ñi ñuy violé ci biir kër yi lañ leen di violé moo xam ne seen i waajur la moo xam seen dijaay la moo xam seen mag euh, ah, man vraiment mënu ma ni musuma ko fee dégg néew ma amu fi nag waaye nag wax dëgg yàlla musuma ko fee dégg Hmm? sensibilisation bi du lenn lu dul ñi nga xam si ñoom lañ koy def ñu wax ko parce que euh, yaakaar naa bàyyi am na beneen taxawaay bu mu war a taxaw digganteem ak doomam lu dul di ko sàkku ndijaay am na beneen taxawaay bu war a taxaw ak jarbaatam lu dul di ko sàkku mag itam am na beneen taxawaay boo xam si moom la war a taxaw rakkam lu dul di ko sàkku li ñuy wax daal mooy nañu vigilant maanaam nañu bàyyi xel kër yi ñu nekk ndax kër yi dafa xaw a xat te euh, euh, dem beeg dikk bi bëri na wax dëgg yàlla nit ñi doo duna toppatoo dara da ngay nekk ci ak sa xale rek nekk ak sa famille wóolu ñëpp fekk na am na ci koo xam ne vraiment mi ngi def loo xam si dëppoo ak li nga xam si moo war nekk. nañuy boole. Hmm? nañuy boole nañuy boole nañ koy wax ca kaw puisque ñaawteef dañ koy wax dañ koy dénoncé wax naa ko fii léegi puisque Fall dafa wax lu am solo nee na. ay kilifa ñoo koy def ay mukallaf ñoo koy def kon ay xale defuñu ko ñi koy def ay mag magi jëmm lañu ñooñu dañuy solo ba jekk sol seen basin doon kilifa waaye doon am joor jikko ju sew jikko ju sew bi mooy lan mooy jëf ji nga xam ne si moom la ñuy jëf jàppale bi ñuy jàppale adjoint mën naa wax ne li ko war a ñaar la benn bi suñu ministère suñu ministre de tutelle Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam mooy président d'honneur euh, bu bu bu AJVA alors euh, bi ñu waree def seen forum bi dafa contacter société bi ni dafa bëgguñu ñu accompagner leen pour que événement bi nekk événement bu bu am réussite bi ñu ko waxee aussi ñun ñu sawar ci trop. beneen bi c' est parce que ñun société la boo xam ne dañoo nekk ci gox bi nga xam ne war ngaay implanté na fi di fi liggéey di fi génnee li ñu fi génnee di bëgg nag population yëpp man ci jariñu donc comme société citoyenne la responsable ñu ni nag nan xool naka la ñuy ànd ak AJOA bis boobu ñu jàpp ci ba nga xam ne mu nekk bis bu réussir bu réussir donc ñaari. aspect yooyu moo tax surtout ñu bokk ci ak yi donc également li nga xam ni mooy thème bi nga xam moom la ñuy waxtaane tey muy thème bu doy waar au Sénégal actuellement parce que kenn werantewul ni fi ne nii doo lire journal wala nga xool ci internet bi wala nga sant te déggoo ñu ni viol am na pédophilie muy loo xam ni c'est devenu une gangrène suñu société ñu ni kon boog kon lan moo ko mën a faj li ko mën a faj mooy di ko waxtaane di sensibiliser nit ñi di wax ak population xale yi ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy nekk souvent bi de sa donc muy tey boo xoolee bâche bi tranche d'âge yi dafa varié am nay xale yi ndaw ça veut dire que donc léegi parents yi sax ñoo ngi bëgg a yeewu parce que bu njëkk thème yu demee nii dafa naan nekk tabu kenn ndaw ci bëgg a wax mais léegi def naa nit ñi yeewu nañ ci benn fànn muy que ni yu demee nii bu ñu ko waxtaanewul sensibiliser en fait xale yi nga xam ñooy nekk victime toujours boo deful nag day gën a garaw donc ma yaa am yaakaar ci ni AGEVAL li muy def nii képp ku citoyen war nga koo jàppale bu ko defee seen liggéey moom jëm kanam pour le bien en fait de la nation sénégalaise donc di dalal di dalal xel waa AGEVAL ni leen Euh, ànd bi ñu commencé ànd du àndu benn bis dana leen di xamal leen tànt na leen seen loxo ni pour ñu ñëw ñu àndandoo liggéey à travers euh, le Sénégal bu ko defee ñu xool naka la mën a jàppalante ba xale yeeg jigéen ñeeg góor ñi nga xam ne dañuy am ay violence yoo xam ne violence violence conjugale ak lépp lu mën ti doon muy loo xam dañ koy fàtte incha allah loolu mooy dafa dëgër bopp parce que lu tax mbir yi dëgër bopp bu ñu seetloo dañuy xool ne que léegi askan bi ñu bari xamuñu lan mooy seen àq ak seen yelleef te léegi mettital yooyu ñi nga xam ne ñu ngi koy mettital euh, askan bi bu njëkk ba xëy na dañ daan ne mettital yi ci biti la daan jóge mais léegi mettital yi mu ngi ci biir kër yi ci biir kër yi lay xewee léegi bu xewee ci biir kër yi xam nga rek ñun dañu nekk euh, société bi nga xam ne dañu yaree ci ci sutura dañu yaree ci muñ naan ñu euh, maanaam li nga xam ne dafa xew ci biir kër gi jarul muy génn ci biti nañ ko jéem a xool naka nañ koy nëpp nëppalee naka nañ koy arrangé nëpp nëppal boobu nag moo am problème parce que bu du loon nëpp nëppal boobu maanaam képp ki nga xam ne dañ la def ñaawteef wala ñu mettital la nga génnee ko nga boole ko soo boolee benn yoon ñaari yoon ah yaakaar naa ne dina wàññeeku waaw ci wàllu chiffre moom man damay basé wu rek ñun xanaa ci suñu chiffre yi nga xam ne euh, moom nañu am fee ci suñu maqan yi nga xam ne moom nañuy woowee boutique de droit parce que soo société euh, at bi bu mu commencé ba fi ñu toll euh, nemmeeku nañu 617 cas de de de viol 617 cas de viol yi nga xam ne dañ ko def ci ay xale yi nga xam ne ku ci gën a tuuti mu ngi am 12 ans ku ci gën a mag mu ngi am 28 ans donc ça pose problème tey ci suñu boutique de droit yi dañuy dem ba nga xam ne dinañuy euh, recevoir ñetti cas de de ay siif par jour te pourtant euh, jamono ji ñu euh, génn wàññeeku woon na ba ñu ne ah surtout au niveau de la banlieue ba ñu ne ah wàññeeku nañu mais jékki-jékki rek affaire bi gën a taraat donc ça veut dire que sensibilisation maanaam waxtaan yi ñuy waxtaan ak askan bi euh, plaidoyer yi ñuy def ak euh, maanaam autorité yi il foog ñu continuer ko il foog ñu continuer ko c'est bien vrai que ñun ñu ngi fépp dañuy dem ba ci euh, gox goxaan yi nga xam ne moom moo gën a sori pour ñaax askan bi mais il faut ñu takkaat suñu dàll yi ah gën a waxtaan ak askan bi pour ñu xam seen ak ak seen yelleef parce que foofu la jafe bi yëpp nekk parce que tey suñu xamee seen ak ak seen yelleef xam ne tey suñu leen tegee ñaawteef yi am na fi nga xam ne war nañ ko fa mën a dem euh, jooytu te buñ ko fa demee jooytu dinañ ko jël en charge defe naa ko askan bi dinañ dem pour xamal ne que ñu ngi leen di mettital jërëjëf